et nous dire évidemment que nous sommes des hommes politiques et un homme politique chez nous ne signifie pas être simplement un homme qui s'occupe des affaires politiques, mais c'est également un homme qui s'occupe des questions sociales, des questions euh, culturelles et même des questions économiques. Et je pense que cette dernière, évidemment, est, la plus attendue des, des couches sociales. Euh, Dieu a fait que nous sommes évidemment dans un quartier ou dans une cité, en tout cas dans un, dans un endroit où euh, la majeure partie des populations euh, vit, à euh, avoisine le seuil de la pauvreté. Euh, vous voyez, ce n'est pas rien pour un homme politique qui s'occupe, qui est issu de. di sant également dynamique bi nga nous ni ñun ñëpp ba ñu président Macky Sall donte élection législative le jëm président Macky Sall lañu wara war mom mo ñu tax ñun ñëpp ñu bolo pour dem ci loolu. di sant mbolo mi nga ci ñii dañoo am ay kilifa yu leen fi yebal ñii seen cof ñu ngeen ñu moo ñuy bëmax ba tey euh, li nga xamante ni dañ ko daan def ci weeru koor di ci invité suñuy xaritu politique yi ñu nekk ci euh, joxe ndogu yendoo waxtaan euh, wàccelu kaamil waxtaan ba ngoon ñu ndogu waxtaan waxtaanu àdduna tasaaru depuis 2012 ñu koy def euh, ba ren nag mu mel ni dafa am loo xamante ni euh, dañu koy faral di jàngal nit boo tàmmee di def lenn mu jik la bu fekkee da cee gis ay bunt yokk da ngaa war a ja jaarte bunt yooyee kon lii ñu tàmbali tey muy première édition li nga xamante ni moom lañu ñu duppee ci bi ñu xalaatee ak suñu ñoñ yi ba pare ñu duppee ko euh, la caravane républicaine du cœur mom lañu tambalé tay muy première édition ñu ñaan suñu borom dolel ñu taxawal ñu ba ñu am ay édition yu bare bare comme ni ndogum républicain tay siwe ndax ci misal rek bo démé ci Google bo bindé ndogu républicain ñun né jëk gis waaw pour wone né kay bok nañ ci nga xam ñoko jëk njëkk ci réew mi waaye dañu ñaan itam li nga xamante dañ koy door ren te barab bi ñu jëk siaré muy sa barab bi ñu ñaan suñu borom dogal euh, mu doon première édition ay édition yu bare bare bare ñun ñëpp nag ñu fekke ko imam da nga yàgg ñoo jiite ñi ah, ngi sant bu baax a baax ah duñu wax sax li ñu ciy def maanaam la nga xam moom lañ daan def ci ndogu loolee la ñu jël rek ñu ne léegi au lieu ñu def loolu euh, weeru koor lañ nekk nañu seet ñi nga xam ñoo fi teewal suñu borom représenté ko ndax bu ñuy xool imam yi lay doon ak sëñ daara yi ñu ne nañ dem ca ñoom euh, waxtaan ak ñoom ñaan leen ci ñoom ñaan ñu ñaanal président de la république ndax yan bi mu yenu gëna woyef ci mom ndax suñu borom léral yoonam fu mu jëm ñaanal itam comme ties lañu nek te dañoo jëm djublu ci ay jongante ngeen ñaanal itam suñu tedd bi nga xamé mom lañu wax si te nga xamé tay di ñun suñu coalition bi yépp dañoo manko don ben nit képp fas yéene koo jàppale mu melne bu don suñu bop lañu lañu investir loolu lañu ñu fas def di ñaan itam ngeen ñaanal ko eh, yen bi woef ci mom te yalla may ko xarañ ak eh, ak ak ak ak taxaway ak wër ak tal gu mu jité liste bobu ba sunu borom defal ko ci ndam defal ñu ci ndam ñun ñep ngir président de la république kontaan ci nga xamanteni moy Thiès ndax Thiès nak te amna président des naa ci Thiès donte amna fi ay ndaw nak yu pasteefu waye tam des eh, la ca des nak dañ ko yaakar ci yeen motax ñu ñew suñu jéego yi fofu lañ ko bëgg a ñu ngi sant ñëpp di jégalu encore ci kàddu yi di la ñaanal suñu borom yàggal la suñu kanam nga yàgg ñoo jiite ñu ngi sant jullit nee na jullit su jaaree fi nga xam ni foofu la ko diine teg su jaaree fi nga xam ni foofu la ko diine teg incha allah du fakkastalu du yàqule te di li muy bëgg dina ko am incha allah du fakkastalu te du yàqule te li mu bëgg dana ko am incha allah ah ñu ngi rafet it wax dëgg yàlla ñu ngi rafet lu nag wax dëgg yàlla teew bi ngeen fi teew tey teew bi ngeen fi teew bisu tey am na ci ay ci yéen ñoo xam ne samay xarit lañu. am na ci ci yéen ñoo xam ne xaritu imaam lañu. te ñu ngi ñu ngi mos agsi ci kër gi. te tey ñu ngi mos dugg ci kër gi. loolu yëpp nag yéen a ko waral. loolu yëpp nag yéen a ko waral. mu mel nii ndaw sëñ Babacar Ndaw mii. mi ngi mel ne seen Babacar Ndaw mii toog. daje nañu ay béréb yu bëri. daje nañu nag bërëb yu bëri lool. yoo xam ne fa tabaarakalla. fa tabaarakallaahu. la ñu fay yóbbu yittey doomu aadama yi. dong la yóbbu mooy yittey doomu aadama rek. yéen it yàlla mi ngi leen mi ngi leen nattoo. yéen itam yàlla daf leen am lu mu leen nattoo. ngeen am loo ngeen am yitte ci doomu aadama ngeen am yitte nag ci doomu aadama yi. loolu nag képp ku ko yàlla defal. nee na loolu yëpp ku ko yàlla defal. li ci yonent bi wax moo ci nekk. li ci yonent bi wax rek moo ci nekk. dafa ni. dafa ni ki gën ci yéen. ki gën ci yéen. mooy kiy gën a taxawu doomu aadama. mooy ki nga xam ne moo gën a taxaw doomu aadama yi comme ni mu ko waxee ci ku gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan jàngale alxuraan mooy ni mu ko waxee ku gën ci yéen jàng alxuraan te jàngale alxuraan yéen xeet bi mooy seen yitte yéen xeet bi mooy di seen itte ku ko yàlla nattoo nag ku ko yàlla nattoo nag nattoo na la lu rëy nattoo na la lu rëy waaye nattoo na la it lu metti waaye nattoo it la lu métti métti métti yàlla baax na insha allahu yàlla nag baax na insha allahu li ngeen ci bëgg li ngeen ci bëgg yàlla mën na leen koo defal ba defal leen lu ëpp seen njort yàlla mën na leen koo defal ba defal leen ko lu ëpp seen njort ñun réew mii ñu nekk ndax réew mii ñu ne tey guddi ak bëccëg jàmm lañu fi ñaan guddi ak bëccëg jàmm lañu ñaan ci réew mii bëgg ñëpp àndandoo. bëgg ñëpp àndandoo. nekk benn. nekk benn. di yëkkatindoo. di yëkkatindoo. di jëfandoo. di jëfandoo. su ko defee lañ diine sant. bu fa ko defee nag lañu diine sant. ñu mën koo defee nañ ko bëgg. nu mën koo defee nag nanu ko diine sant nun yàlla ñu ko yàlla defal kon yàlla nañu ko buur yàlla defal. ñoo ngi leen di sant bu baax. ñu ngi leen sant nag bu baax. delloo nag. gën kontaan nag. dellu nag gën a kontaan. ci daje bii. ci daje bii ñu daje. ci weer bii ñu ko def. ci weer bii ñu ko def. ci bés yi ñu ko bés yu mujj yi ñu ko def. ñoo ngi ñaan yàlla. ñoo ngi ñaan sunu borom. yal nañu yàlla yóbbu ci korite yàlla yóbbu ci korite gi ak jàmm. ci lépp lu ci jaamu lépp luñ ci jaamu nag. yal na ko yàlla nangu. yal na ko buur yàlla nangu. ci daraja yonent bi. ci daraja yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam. incha allah. incha allah. li nga xam ni moom la ñu mën ci wàllu ñaan. nee na li nga xam ne moom la ñu mën nag tey ci wàllu ñaan. incha allah nañ ko def. incha allah danañu leen ko defal daan nañ ko def waaye. daan nañ ko def waaye dañ ko yokk waaye dañ gën a yokk incha waaye dañ ko yokk incha allah. li ngeen bëgg it. li ngeen bëgg. yéen a ko xam. yéen a ko xam nag. mu commencé ci yéen ba ca président. waaye commencé ci yéen ñii délégation yi ba ca président. waaye loolu mi nga ci loxol yàlla. waaye loolu nag mu nga ci loxo yàlla. ci loxol yàlla la nekk. ci loxo yàlla la nekk nag. yàlla nag yàlla na ko yàlla na ko teg ci seen loxo. yàlla nag nag ko buur yàlla teg ci seen loxo ngeen muurloo ko. waaye nag soo leen su leen ko yàlla jox defalee. waaye nag bu leen ko yàlla defalee. na ngeen seet àqu doomu aadama. na ngeen seet nag àqu doomu aadama dañ seen gannaaw. na ngeen seet àqu doomu aadama yi. ngeen seet àqu doomu aadama yi. parce que ëllëg. ëllëg. lañ leen koy laaj. yàlla da leen leen koy laaj de. su ngeen yàlla boole leen ak nit ñi ngeen. di leen sant ñuy def ngeen di leen wax ñuy dégg su yàlla defee na ngeen boole leen ak nit ñi ngeen di sant ñuy ñuy def ñuy di leen déglu ngeen di ngeen di def kon ngeen di seen kilifa di wax ngeen di seen kilifa ñu topp ci yéen di wax di def di wax di def ñëpp nangu leen ko. ñëpp nag ànd nangu leen loolu. dañuy day ci yàlla de. kon de danañu am bis dañuy tase ñun ñëpp ci kanamu yàlla. yàlla na yéex rek. yàlla na yéex rek te responsable bu ci nekk. te responsable bu ci ne. di nga ko di nga di nga di nga teew ci kanamu yàlla. allah da nga tax teew ca kanamu sunu borom. dana la ko laaj yi dana la laaj lii ma la joxoon noo ko yore. waaye maa ngi ñaan ci suñu borom bi Mawlana. waaye nu ngi ñaan nag ci sunu borom Mawlana tabaraka wa taala تدرجي سن سن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تدرجي سن سن سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تبارك القرآن تبارك القرآن الكريم تبارك هذه الشهر مبارك ويرك وتدوي تبارك وير وتدوي يلا يلا سمل سن الدين يلا يلا سمل سن الدين يلا يلا سمل سن الدين يلا نبوري يلا سمل سن الدين يلن يلن يلن sàmmal diine gi nag. sàmmal diine gi nag. mooy sàmm njaboot gi. mooy sàmm njaboot gi. teg leen ci yoonu siraatal teg leen nag ci yoonu siraatal mustaqim. yal na ko yàlla defal kon yal na ko buur yàlla defal. waaye li ngeen bëgg it. waaye li ngeen bëgg it. comme ni ma leen ko waxee. comme ni ñu ko waxee léegi. mi ngi ci loxol yàlla la. mi ngi nag ci loxo yàlla suñu borom yal na ko teg seen i loxo. yal na ko teg nag seen i loxo su leen ko teg tegee seen loxo waaye su ko fekkee teg nag seen loxo. yal na ngeen ko muurloo. yàlla na ngeen ko muurloo. ci daraja yonent bi ci daraja yonent bi sallallahu taala kontaan nañ bu baax. kontaan nañ nag bu baax. ñoo ngi sant it bu baax. noo ngi sant it bu baax. ah nag yow xa duñ la wax dara ndax ndax daga nga amul jot. waaw Lamine dañ lay jàppe comme suñu bopp. dañ lay jàppe comme suñu bopp ndax amuloo jot waaw ndax toujours yaa ngi ci. liggéey wala yaa ngi ci service. soo nekkul ci service yaa ngi ci lu mel nii. waaw kon Fatima Fakal loolu duñ la ci mere. kon loolu duñ la ci mere. waaye soo soo ñu gisee soo ñu gisul yëpp. waaye bu fekkee gisul gisuloo ñu. ak boo ñu gisee ñoo ngi ñaan. nga xam ne yëpp ñaan gi moom du dakk mu. incha allah incha allah waaw. loolu daal lañ ci bëggoon wax ci kaddu. jërëjëf ngeen baal ñu wax. jërëjëf euh, imam. lu mu ne ñoo ngi ca. ndax bu dul dara yi sama goro la te sama rakk lay denc moom mii wax naa ko keroog ba mu ñëwee bi euh, bis ci bis bi ñu tasewul fële mën na ko yow gis nañ li ngay def ci baax ci dëkk bi kon na nga xam ne nit lu bon rek lay def di ko rëccu waaye lu baax ko def di ko rëccu bala ñuy dem feneen nag tàbbi sow moo gën te sëñ Bara ñun ñun ñun ñun da ca paccax li ci kaas bu ne bu dëgg la ca baraana ba ca te seet wax ji mën naa gàtt tegtalu waaye na ngeen xam ne li ngeen doon wut yàlla na leen ko yàlla defal ci barke Serigne Touba yàlla na leen ko yàlla defal ci barke Serigne Saliou Touré yàlla na ko yàlla defal ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Bara li ma bëgg tey li ñu waxtaane woon sànq Cissé mooy damaa bëgg boo ñaanee na aajo yëpp faju cëy kon jeex na nee na lañu bëgg tey mu defal ko tey euh, ma dolli la ci lenn ñu bëri ñëw nañ fii jarul nga tudd tur du ma tudd benn tur parce que ci wàllu liggéey bii la waaye lii ma wax tey tey xam nga yow jot moom gisuma déedéet li mu wax nii de mën naa doo sama loxo ci kaamil ba ba ba léegi man tey laa koy dégg-dégg mu wax ko. même maire yi du maire Thiès ñëw nañu ak maire Ngoundiane ak ñëpp li may wax neen li wax nii tey moom mosu ko wax tey lu neen lu tax ma koy wax mooy neen sëñ Lamine mii ak sëñ Maguette Diouf dafa wax ji yëpp neen dafa wax suñu mag moo ñu seet si moo ñu seet si neen seen dëkkandoo moo la ko seet si ku yàgg jëf ci lii nee na ku yàgg a jëf ci lii maanaam toogul rek te tey ba soxla nit ñi nee na tey ba soxla nit ñi rek ma door a wëri nit ñi nee na door a wëri ñi waaw ci télé sax maanaam ngeen baal ma gis naa neen ci télé sax gis naa koo xam ni nee na gis koo xam ni mosuñu ko gis maanaam ci mbedd yi nee na gis mosuñu gis ci mbedd yi am mu am télévision bu koy filmé muy wër maanaam di joxe ndogu muy ne loolu moom moom triché la nee na loolu moom triché waaye moom mii maanaam dafa yàgg wàcc maanaam bi sama daara ji yàgg na ma fay fekk nee na daara ji yàgg na ko fay fekk guddeeg bëccëg guddeeg bëccëg jël lu am solo jox nee na jël lu ay teraanga yu bari teg ko ci loxoom kii maa la ko nee na lii maa la ko jàppale te fekk boobu doomam sax nekkul ci daara ji nee bu nekkoon ne doomam nekkul ci daara ji waaye ay teraangaam law na baax nee na law na baax si moom. kon lu mu soxla ci man. nee na comme lu mu soxla ci moom mii su ko ko joxul rek moom mu gorewul. Mm. te sëñ Njuga bi jox daara ji. te koy jox daara ji dafa nekkoon. loo ñaan rek maa ñaan xaw ma loola ñorul de. xaw ma loola ñorul de. waaye loola ñor waaye loola ñor. yàlla da koy faj yàlla dina ko faj ci saasi. jërëjëf Cissé yàlla na yàlla guddal fan. bu ñu liggéeyal Serigne Touba. Mm. ci ay ñoñom. taxawal taxaw ci ay ñoñom. ana Serigne Ndiaye. ana Serigne Ndiaye. jubal taxaw jàng yaa rahmaanu yaa xasida ak Rabbi bi Serigne Saliou Mbacké daan ñaan mhm. nga xam ne ñaan mu faju ñëwoon ni ñaan seen doom ba tànk boobu na ci am boo xam ne ah, da afdal liman lilahi xad laja am di karim la sharika lahu wa sadri yomanu la malaha muhammad صلوات الله في أبد عليه في اسمه كل بكلا أدعو إلهي إلسي أمر موائب لجملة خلق من يختار من برع نجيت جلا ومن وكرمني تكريم عادل وكل من لخد بريع رمان قبل جميع خلق رامة من يني أنيسر من قرآن وقرا أتومة المصطفى عن كل مفسدة وتر أميق القيام جاد برا يا مالك الملك يا من جل القواد إرام جميع الورى يا أديان ردا ما وتما قنأ قلب من ضرر بجاء أفضل من لله قد لجا ما وتماقنا قلب من درر بجاء أفضل من لله قد لجا وتبنا وقينا وكلنا وابلنا حسن الختام ربنا وصليا على النبي وسلم واهدي بحاجة كل مسلم يا ربي نجنا من الشيطان ndomb tànk kaw ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci diine xalaat bi daj loolu ñu ne léegi dañuy soppi ndogu ndogu républicain doxalin bi dañ koy soppi léegi ñu ngi ko tuddee caravane républicaine du cœur caravane républicaine du kër nag dafa ñuy jox sañ-sañu ci suñu xalaat la ñu am mu bari mu néew ñu séddoo ko ñi nga xamante ñoom la ñu tuddee ay nitu diine maanaam ñi nga xam ñooy liggéey di ci di yëngatu ci diine te diine képp ñor leen nag moo xam ndax politicien dafa daan dafa daan baaxoo di ànd ak koo xam ne moom koo koo koy wax la ko neex waaye xam nga fii ñun dégg lu ñu neex indiwuñu fi waaw dégg lu ñu neex indiwuñu fi xëy na feneen bu ñu fa doon dem kër Mor Ndiaye mais bu ñu fay dem moom bu ñu waxee leneen lu dul noonu moom ñu defante ko moom. waaye ku xam imam Pape sol sa daal dem di ko seeti dégg lu la neex yóbbuwu la fa bu fekkee xam nga ko moo tax bu ñu fi ñëwee. lu ñu fi fekk baax na lu ñu am jël waaye xam nañu fi ñu toll ci yow kon ñuy ñaan ñi nga xam mooy suñu tànk dañoo jëm ci ay élection te ñun ci yooyu lañuy ñuy yëngatu ci wàllu àdduna di sàkku ci yow nga ñaanal président de la république Macky Sall ndax yenn bi oyof ci moom ndax élection yi ñu jëm itam doon élection yoo xam ne Sénégal da koy dund ak jàmm ak dal nga ñaanal itam suñu tedd de liste bi nga xam ne mooy Siré Diak moom mi ñuy diriger suñu risque départemental yàlla defal ko ndam ndax ndamam mooy suñu ndam euh, dama déggoon sëñ Abdou bu mu daan wax ne boo amee bagage bu war a jaar ci gaal di ñëw bul ñaan bagage ba yegsi da ngay ñaan gaal ga teer ak jàmm waaw kon dañuy ñaan suñu tedd de liste bi ndax ndam li ñu bëgg a jébbal président de la république ci moom la war a jaar dañuy ñaan nga nga nga ñaanal ko sàkku nga ñaanal ko yàlla def liste boobu mu doon liste buy gagné doon liste bu am ndam ci élection yi ndax ñu mun a am ngërëmal président de la république ndax kuy politique nag da bëgg ka nga xam moom ngay liggéeyal eh, di am ci yow kontaante ndax ngay am ngërëmam. loolu lañ doon ñaan waaye dama bëggoon a sàkku rek may ma minute bu ndaw rek lu mu gàtt rek di sàkku ci ndigal ñu jox suñu xarit bi di njagawaat nga xam moom également du gan ci kër gi. Euh, mu barkeelu ci ay kàddu rek balaa ñu lay jébbal kàddu bi asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. ñu lay nuyu bu baax di la gërëm di la sant di la masawu si koor gi xam naa ni imaam bu sant mbay moom <laughs> koor gi ñëwee di la xaw a sonn tuuti <laughs> di la wax ni la fii Lamine daane la rek foofu laay foofu laay tàmbalee dañuy faral di wax naan ay kilifa diine ak kilifa àdduna benn taay dina am wax jooju si xam xamante ni sax man duma koy xaw di d'accord tuuti. gaa ñun foofu lañ ñuy féetale waaye ñun ñuy yëngatu si loo xam ne muy mbirum politique dafa yenn saa nit ñi dañ koo yàq si xelu nit ñi ba ba daanaka nit ku baax ku ne bu ne politique la rek nga jël ko teg ko fële doo ko bëgg a laal te mu nekk loo xamante ni nit ku baax ko war a def goro ko war a def jullit moo ko war a def parce que bu fekkee nit ñu baax ñi romb nañ fi politique defuñu ko di dinañ gis ab saay-saay jël ko def ko bant di ko dóore nit ñu baax ñi yaakaar naa ne day loolu moo waral suñu jotaay bi tey fekkan ku mel ni Lamine jugul def politique kon xelam du nekk mu ñëw ba ni neen ñëw ci imam yi pour jàppale leen ci bis bi ni jëm muy bisub laylatu xadar muy bis boo xamante ni bis bu màgg la si julit yëpp ñun ñëpp ñu bokk kon mu nekk loo xamante ni war nañoo xoolaat niñ koy traité ak niñ koy jàppe nit ñi xam ni ay nit ñu baax ñoo ngi si nekk ay nit ñu gëm yàlla nit ñu xam seen bopp xam valeur xam ñu bokk ñooñu ñooy di def politique ñenn ñi bokk mais tamit du ñëpp la ñuy généraliser parce que foo dem di nga ko fekk yenn saa lu fay taas waaye am na nit ñu mel noonu ñu nekk di def politique ñooñu nag yaakaar naa ñu si bari ñu daje fii ñu mel noonu ci lan bokk parce que ab koñ boo fa dëkkee juddoo fa màgge fa xalaatoo di fa def lu ñaaw loo xamante ni ëllëg dañ lay joxoñ yaakaar naa lamine ñu du ñëw fii di leen fi dikk wala mu fi wax loo xamante ni suba du leen fi mën a romb kon loolu lu muy rus lay doon looloo waral jataay tànkam yi tey jii mu nekk loo xamante ni nag comme ni mu ko sàkkoo ñaan la ñuy sàkku pour si li ñu jëm parce que li ñu jëm tamit dafa nekk lu am solo xëy na coow li bari na lool da gis ñoo xamante ni dañ naan way nan xëcc jëmale côté bi mais dafa dafa fekk ni réew mi ñu nekk dafa nekk réew moo xamante ni cohabitation comme ni ko gars yi bëgge loolu mënagu fee nekk li olof di wax naan ñaari du ñu bokk benn mbalka boo demee pays bi mel ni Niger ñaari at a ngi ni mu bloqué xam nga lan moo ko waral ñii yor ensemble président bi yor pouvoir kii lolo wa taxar rew moom bloqué mënta dem mënta dik xeyna nak ñi di xeccu lolo lañ bëgg suñu rew mi lolo dafa jot ñun ñu ku nekk jël tankam ki ci mëna waxal nga waxal ko wax seen moom moom xam ne ñi fi lañ bëgg jëmele rew mi te lolo du lu gën si rew mi mu nekk lo xamanteni ni tamit dañ ci sakku seen ñaan di ñaan tamit yeen ngeen japp ci parce que bu fekke dañu nekk rew moom président day tiré jëm côté bale ñeneen tiré jëm côté ba rew mom du dem te loolu nag ñaanaluñ ko suñu réew mi ñu nekk ñu ñaan yàlla si barke bis bi ñu jëm muy guddi gi ñu jëm muy guddi lay taxaat ngeen ñaanal Sénégal ñaanal président de la république te li ñu bëgg yàlla jox ñu ko muy majorité muy jox ñu ko te majorité boobu tamit bu ñu ko yàlla joxee ñu xam ni tamit lu ñu war a jariñee doomu aadama yi waaye warul nekk loo xamante ni dañ koy jël di ko bugale doomu adama yi mhm. voilà loolu tamit bëgg nañ ngeen ñaanal ñu yàlla delloo suñu xel bu baax si yu mel noonu asalaamaaleykum wa rahmatullah naam Muhammad jéggul suñuy bàkkaar di jégal ñëpp di ñaan ñëpp ñu jégal ñu ñaan yàlla yàlla yàlla dolli euh, fani koor yi ñu toll di son yu am solo euh, li ci nekk ci ay yu yàlla ñu ko yàlla defal euh, di rafet lu jotaay bi ndax julit bu jugee seeti moroomu julitam loolu dara gënu ko màgg surtout ci lislaam lamin nit ci waxam nga koy jàpp wax naag man wax yoo xamante ni moom baanaka eh, luy des ci moom lu bari ci moom lay dese ndax am na lu ma wax loo xam parce que man eh, nit yonent bi nee na umirtu an ahkuma bi zawahir wallahu yatawalla sarair nay atte nit ñi ci lañ ma wan lañu ma nëbb nag yàllaa ko res ndax moo ko xam moo tax ba su ma jëlalee max comme ni mu leen ko waxee max mooy ko xam ni daraam réer ump ma dañu koy bañ ci sax naa ko yow suq Iba Pambe nga mu mag ma fuuf muy dégg kàddu googu te daxariwu ko kooku modeste la bu nekk ci moom ak dëggu gu mu àndeek man ndax su du woon lool rek kon ba léegi bàyyi na ko ndax kàddu googu yooyu yëpp muy euh, kóllëre gu ñu séq damay wax ni euh, maanaam dama ko wax benn autorité ci ci Cees gi dañu dem seeti ko ma ne ko yéen ñiy def politique dama bëgg ngeen xam leen nun nitu diine yi yoru ñu nguur de damay bañ ngeen bokkaale yàlla su ngeen ñëwee si ñun ñun yoruñu nguur de qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanziul mulka man tasha nguur borom dënd bi ko moom moo koy jox ku ko neex président Macky Sall avant muy jot ci réew mi ku ko waxoon di nga ci jot du ko gëm mais yàlla la soob mu teg ko ci loxoom keneen mun ko fuqati ci loxoom te yàlla parewul ci moom loolu il faut jullit bi admettre ko euh, kon Euh, lolu toujours lu ñu war di leeral la ñun yoru ñu ngor bakoy joxe ndax suñu bop sax mënaluñu suñu bop dara sëriñ buñu buñu taxaw na la yow lo wax mu am nga bayiko dengan ci da nga susural ñoo ko war ak mi yow xam nga ni wax nga ba tay yalla bañ kon yalla mom mom ngoram joxe kon nak ñu ngi euh, ñaan yàlla rek moom ñu ngi ko teg ci loxoom ah yàlla bu mu ci rus ñi mu ko àndal di ko defit yàlla bu mu ci rus euh, kon seen ñëw bi ñu koy rafetlu ndax ay am réew damay wax ni man Lamine ku muus la ndax xam nga daf ma daf ma ceddaw nee na ma yow xaaruma fi damay jeter des fleurs xam nga sama yàlla dañoo xamante na nga xamante ay jàngalekat waaw waaw loolu la deme mais nag lépp yiw la waaw ndax sama benn maam da wax ni nee na sawaay bu ngeen àndee gudd bëccëg ba ngoon jot waxu la lu la naqari waxoo ko lu ko naqari ànd bu du dëgg ndax nit war na toog ba ci nga ko yow nii ngay doxe gisewuma nii ku la ko dul wax rek dalay jey léegi nag sénégal dañu nekk ci dëkk boo xam ni ñii sànni ay fleur ñoo ëpp ba ku wax dëgg kontar nga malheureusement nag waaw yow bala nga xam ñi wax dëgg say mbokk nga dugg ca kàmm nga nag xam ne ñala doon jey ñoo la ci dugal mais du ñala doon wax dëgg loolu mooy réew mi réew mu dund man duma contre nit ñaanuma yàlla contre nit waaye nag yàlla moo ni ñun imaam yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullaha yéen ñi ni maay seen kilifa yéen ñu ko nangu maay kilifa ñëpp mais yéen ñu ko nangu nag ittaqullaha wekk leen ma wa kunu ma as-saadiqin ànd leen ak ñu dëggu rek moo kooku mooy sunu devise ñun imaam ñun ñu nitu diine loolu mooy suñu diine ñun amuñu farandoo amuñu dara ku dëggu rek xamal ni ñoo bokk kan waaw du fekk ni ñoon ñun ñoo ñëw ba far fartege fekk yaa fekk ci camp bi ñu nekk nga ñëw toog ci parce que ñun ñu ci camp dëgg rek ku nekk ci dëgg rek ñu yëg ni ñoo bokk ñoo bokk camp bi waaw ñun noonu la mooy suñu àdduna euh, da sa ñëw bii nag am na lu mu saafara ci lenn mooy dama daan wax Max ni ko yéen APR mbaa da ngeen di allergie imam waaw dama ko doon wax ni ko mbaa yéen da ngeen allergie imam waaw parce que man ni ko damay gis man damay nekk ci ay manifestation yoo xam ni wóor na ma ni wutub dërëm dugaluma ci wóor na ma ni amuma ci dërëm te duma leen ca gis man awuma benn activité bu may def boo xam ne ma ca paree dinaa ci am ab dépense au contraire sama alal laay gën di ci dugal mhm. man loolu lépp ma koy def di yëngu ci wàllu problème crise scolaire bi problème sociaux yi nekk ci dëkk bi yëpp maa ngi ci yëngu mais nag defuma ko ngir nit ñi moo tax du wut buzz doyuma ko dara parce que ki koy defal moom soxlawul buzz pour ma fay la moo tax sans trompette nit waaw tambour ma ne ko léegi nag dama dul dama leen ci dul gis ma ragal ni xanaa da ngeen allergie imam waye Lamine dindi na ko loolu la and di jariñ xëy president président Macky Sall mënul fu ne mu dem fa mais ñi mu àndal ko wax ab euh, président Abdou Diouf bama nekké Maroc am problème buma afon ma bind ko lettre ne ko ma nga fi am problème bo xamanteni yow mi la japp ni amako tek ndax ku nek ka nga fa tek lu mu tek waja citoyen ba day japp ni président bako ko fa tek daf ma répondre immédiatement parce que xam ne li ma ko wax dëgg la waaw kon mbir mi yow am na loo résoudre ndax pour man loolu di dindi ko ko ci sa acte bi donc acte bu am solo la ah yàlla ñu yàlla defal jàmm te yàlla def ñu ay jullit te it ñun ñëpp damay wax ni euh, nitu euh, àdduna comme ni nga ko waxee sànq wax nga lu am solo dañu war a bañ ñu naan kii nitu àdduna kii nitu diina la nit day nekk ku gëm yàlla mu nekk ku ñàkk gëm yàlla mais acte boo posé rek acte boobu yàlla dina la ko réglé kon nag nitu diine maanaam dichotomie bu ñu def entre diine ak àdduna ma amatu fi waaw wa qul i'malu fa sayara llahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna yàlla nee na jëf leen na ku nekk def loola neex mais na ngeen xam ni yéen a ngi sous contrôle contrôle kan yàlla li ngeen def yalla ngi vérifier ndax mo tax wala taxu jub na wala jubul sous contrôle sayyidina muhammad est ce que li ngeen def dëppoo nak sunna sous contrôle jullit yi ndax jullit yi gis nañ ci seen bop neena lu ngeen def rek xam leen ni ñetti contrôle yi mi ngi bu leen neex nga def lu leen neex kon lolu wax deug yalla ñun ñoy moy suru sunu dundin ci lañu bëgg dundu ah jaan yalla ci yalla saxal waaw ndax Euh, politique comme ni nga ko waxee nekkul ni ñu ko gisee parce que dama nii dañ ni politique lambi golo la mais lambi gor la bu ñu soppi lambi golo waaw politique lambi gor la bu ñu soppi lambi golo mais buñ ni kon lambi golo la waaw parce que ñu ko waroon dox ñoo ko doxul moo tax Eh, mu nek lambi gol kon yalla ñal musal ci lambi gol ndax lambi gol mom kenn du ci mucc ah, kon nak bu ko defé ñu ngi lu jotaay bi ah, di ñaan yalla yaakar parce que gis nga ñaan ñaan nekkul ci ki ñaan mais ci koy ñaanu la nek dafa am ben way bo xam dafa amoon ben bammel bu rafet sa bu amé soxla tim bammel ba ñaan affaire bi faju immédiat ndekkat ab xaj lañ fa mu koy def ba benn bis ki fa suuloon xaj ba ñëw fekk mu toog di ñaan ñu ko diw yow looy defi fii ñu ko sama soxla laay ñaan wëli yu bi ne fii wëli yu kaamil la mu ni ko mu ne ko loolu nga xam mu ne fii mun fu may toog tàllal sama yàlla sama loxo te fajul sama soxla immédiatement wëli yu kamil la fi tëdd mu ne ko yow xam nga ki fi tëdd mu ne xooma ku fi tëdd mais wëli yu kamil la mu ne ko déedéet du wëli yu kamil ab xaj la mu ne ko déedéet loolu mu nekk mu ne ko sama xaj la sama xaj la bu amon mu am kullëre mu dee ma bañ koo fàtte suul ko di ko kon nga dig ni kullëre ni mo am solo kullëre ga xaj ba amon ak yaakaar jala la yàlla boole ñooy li ëpp ci àdduna solo waaw moo tax kullëre la fi indi ak yaakaar ñaar yooyu nag du ko kon loolu rek doy na rek pour nangu ñaan ah li ñu bëgg nag man li ma leen wax rek mooy nekk mooy mooy wax mooy daal ñu góor góorlu jàppalante rek ci wàllu njariñu askan bi man daal loolu lay bëgg rek ñu doxal loolu man bëgguma ku ma wutal yoral dépense yàlla yor sama dépense bëgguma ku ma jox oto yàlla yor sama bëgguma ku ma jox leen saa waay def ma keroog yow yow war ngaa am oto de ndax li ngay dox lépp oto kay mën mu ngi nii moo ko wax mu ma ne ko nag gis nga sama moto bii dama ci fier laa wax <laughs> waaw yitte bi mu mën a dox rek la ma yàlla teg bis bu ma waree dox yitte oto rek mu indi ko waaw man noonu laa gis sama àdduna waaw duma ma yàkkamti dara du ma xëccu dara du jël dara ba jaay sama ngor waaw sax tey boo waaw kon nag loolu ñuy sant yàlla waaw yàlla nu yàlla jubal rek te ñu siraatal mustaqim bu ko defee daal eh, comme ni ñu koy waxee rek Lamine daal max ñu leen di wax marhaban di rafet lu ziar bi di ñaan yàlla bu li gën ko rëccu ñaan nañu yàlla defal ndam te ndam li yàlla na ñu jig te yàlla nañu yàlla xiir ci ñu nekk ci njub ndax loolu rek moo am solo moo am imam dénkaane pour élection apaisée c'est l'occasion nga ñaax la ñoom waaw xam nga élection yi maanaam comme apaisement bi weesuwul li mooy ñu gëm ni yàlla moom wóor gis nga nguur bu ko nit doon jox boppam président Abdoulaye Wade du ko ñàkk waxee tamit suñu investir ndax dañoo sas ci li ñuy dëgmal muy élection législative yi ñu bëgg ci ndam macha allah moo tax ñu ñëw di ñaan ah di ñaanit caravane bi la ngeen ay chauffeur di def ndogu la ko daan def at bu jot ñun ñëpp fa lañ ndogoo ren mën na day def caravane seeti kilifa diine yi imaam yeeg sëriñ yeeg ñëpp ñu koy ñaanal yàlla yokk mënam guddal fanam ñu def ko ay ati ati at te li mu bëgg ci ndombal tànk ci parti bi moo ko xam yàlla na ko ko yàlla defal ndax mës ta tàyyi benn yoon booy seet sax dañ naan mooy Baye Fallou Mbacké waaw Baye Fallou mooy Baye Fallou Mbacké kon jërë ngeen jëf boo leen ñu jéggal bu barakat ci saxru ramadaana mubaarak bi ñu nekk yal yàlla mottali yépp yàlla dafa dogal nag te nit ci boppam ci baatu nit nit ëpp na nit ndax boo doolee ko rek nite waaye boo doolee ko da ngay yem ci nite rek loolu yàlla dogal te waxuma la jullit bi waaye nit ku déplacé wu ñëw seet si ku mu mënta doon ne ko dalal teral ko dalal leen teral leen nag mooy sunu kanam itam génn na ci yéen sama xol sedd na itam ci seen dànke yi walla yàlla dogal dana yàlla mottali la mu des nag bu dee ci man incha allahu rabbi am na lu sanga bi wax léegi loolu yaakaar naa ku ko am yaakaar naa bu la doyul itam dafa am yu dul gaaw a doy rek waaye loolu war na doy bu ñu waxee ne itam am na ko ànd ci délégation bi kooku boo ko waxoon ne toogal mu toog bu doy na am na yàlla monteel yi man nag dafa